Mame Mactar Gueye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. waa kay ñu ngi leen tey mu am coow li fi nekk coow li euh, mu jëm ci Miss euh, Sénégal euh, du ki ko jël waaye ki ka ki nga xam ne moom la wuutu coow li ne court tey ban njàngat nga def ci polémique bi. waa xam nga dafa am sa benn confrère en l'occurrence Pape Alé pour ne pas le hmm. bu am habitude di répéter benn benn bu Kocc Barma nee ku artuwul di nga te mm-hmm. waaw wolof ne euh, magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko mm-hmm. effectivement xam nga boo xamee te waxuloo moog dara yem dëgg la waaye ñun waxoon nañu en quatre-vingt-dix-huit en quatre vingt dix et en l'an deux mille ndax boobu dañu amoon ay firnde yu wér ne kii organiser Miss Sénégal ak Miss euh, Jongama mm-hmm. te nekkoon RTS ñu mën na sax leb turam ndax génn na àdduna ñu bañ a wax turam parce que ñun dañu yëkkati woon ay kaddu. Mhm. yëgal opinion bi ne am na jigéen ñu bari ba ñu jaaree ca loxoom ci la ñu yàqu. Mhm. waaje nag jóg nag attaqué ñu ne daf ñuy porter plainte presse bi yëpp jàppale ko daal di diaboliser Jamra ah léegi nag yëf yaa ñu ne fàng li El Hadj di wax rek lu ne fàng kenn du ko jeex parce que kenn mënu woon xalaat ni dëggal di ñu dëggalal euh, xeex ba Jamra doon xeex en quatre-vingt-dix-huit mhm. kenn mënu woon xalaat ne dana jógee ci làmmiñu Miss senegal deux ci bopp ndax def na ay révélation yu garaaw a garaaw a garaaw ci anam yiñ ñu leen di recruter mhm. def ay révélation yu garaaw ci ndëgg sërëx yi ñu leen di lalal ba di leen yóbbu ci ay hôtel dig leen ay billets d'avion ay euh, neexal ay objet de luxe ay bijoux ndekete yoo dañ leen fa doon boole ak i kilifa am na sax ay naar yu jóge ba Dubaï yu ñëw fekke leen foofu ñu naan waaw ñi ay autorité la ñu da ngeen ñëw pour leur tenir compagnie mais loolu ça n'a rien à voir avec l'organisation de Miss Sénégal et voilà ce qui devait arriver est arrivé mooy jàpp nañ Miss bi si boppam sàkku ko mu jëlee ci ëmb mm-hmm. waaw xale bi léegi nag mu ngi am na juróomi weer ba léegi kenn xamul baayam voilà li yëpp ci gàttal dafa dégg li mm-hmm. te ndaw si wax mooy li tubaab di wax la face visible de l'iceberg maanaam li nëbb moo ëpp li mm-hmm. te làmmeñ yaa ngi commencé yeewee ko ndax Miss Matam wax na Miss Saint-Louis wax na mm-hmm. ba ci bis sax ku ci dee ministre gouvernement moo ko ëmbale kon <laughs> kon nag léegi ñi nga am yaakaar ne procureur dana def liggéeyam ndax ñun soññ nañ ko depuis démb. Mm-hmm. ñu ngi gërëm sëñ Bassirou Guèye bi nga xam ne tegu si vingt quatre heures daal di àddu ndax euh, jël na am main dossier bi. Mm-hmm. ñu ngi koy ñaan mu doxal yoon parce que du question single yi kii que ce soit pour sàmm jigéen ñi aar leen. Mm-hmm. contre say-say yi utiliser organisation Miss Sénégal ak Miss Jongama. il faut ubbi bunt. pour di jaay jigéen ñi di leen dugal ci naka su dul mhm. alors kon nag jéego bi procureur war a jëkk def mooy na tas comité d'organisation Miss Sénégal en commençant par euh, nangu sen licence waaye nag ñun Jamra donte le procureur ngi def liggéeyam yoon may ne ñun itam ñu am suñu jéego yu ñuy def ci wàllu yoon. wa waaw moo tax lii juma ba noppi wala au plus tard suba ci samedi mhm. dinañu am jataay ak suñu avocat maître Moussa mm-hmm. ndax ñu mën a def loolu tubaab di de partie civile parce que bu fàtte ne que la loi deux mille vingt zéro cinq du dix janvier deux mille vingt mm-hmm. dafa dafa criminaliser viol ak pédophilie ak képp ku kañ or présidente comité d'organisation bu euh, Miss Sénégal mm nattu bi dal ndaw si yëpp di ko masalu yow amuloo loo wax lu dul naan ku ñu yow la neex voilà loolu dafa nekk un encouragement indirect mm-hmm. des agressions sexuelles a ah, tubaab di ko wax apologie du viol alors moo tax nag dinañ porter plainte pour loolu waaye yemuñu ci loolu mm-hmm. ndax fi may yow am une équipe bureau exécutif de six ou sept membres tasaaroo nañu ci Dakar ak jox nañ leen benn liste entreprise yi sponsorisé Miss Sénégal pour ñu ñaan leen ñu retirer seen ak seen soutien. Mm-hmm. ñu ngi gërëm CFAO Motors mu ngi woon ci suñu liste waaye donte la jotuñu egg ci ñoom ñoom jël nañ les devant ba retirer nañu seen ndimbal ci wàllu kopar ak ci wàllu logistique parce que ñoom ñoo doon joxe oto yi léegi oto yëpp nangu nañ ko. Mm-hmm. voilà ni ñëpp def loolu ndax ñu daaneel Miss Sénégal ñu arrêté ko ci dëkk bi ndax euh, wane na ay yoon yoon yoon ko buntu yàqute la buntu la boo xam ne dañuy mepp xale yi di leen dugal ci lu yàq seen jikko ak di jaay seen bopp. Mm-hmm. te lu dëgg du yoon xam nañ ne Jamra bu jàppee euh, du bàyyi. day ŋànk ba mu dëgër euh, tey nga wax ko plus de vingt ans ngeen euh, alerté ci mbir mi mm. xanaa prévier mm. doyu loon wala lan moo waral Jamra après poussé wul dem au bout ci combat boobu waaw ñun demoon nañ jusqu'au bout waaye ki ñu attaqué woon presse bi ñoo ko jàppale ne Jamra waxul dëgg Jamra day fuural am na ku ne sax Jamra deux points ou l'art de tout enfler loolu la ah, ñu daal di ah baax na kanam rawul waaye mu ngi nii waa ji génn na àdduna keneen jël organisation Miss bi rek af scandale bi éclaté te bii du moo wax Miss yi si seen bopp ñoo jafu alors bu ko defee nag léegi comme que lépp feeñ na mm-hmm. nañu bàyyi procureur rek mu def liggéeyam dañu supprimer Miss yi Sénégal ak Miss Jongoma <laughs> léegi ndax dafa feeñ ba ci ndara kàmm ne buntu yàqute ak buntu sànq suñuy doom ak suñuy jarbaat ak suñuy eh, suñuy eh, jigéen ñi nga xam ne ñu ci bari dañu bokk bu baax mm-hmm. jànkoonteeg ay jafe-jafe ci wàllu crise économique crise de l'emploi mm-hmm. yaakaar ne dañu doon ñëw pour daan seen doole ndekete yoo ay saay-saay la ñu si ñëpp a jàpp ñu dindi Miss Sénégal te xale yi nañu gëm yàlla ñu retiré wu waaw jéem a seet neneen nu ñuy amee des activités génératrices de revenus te sori structure bi nga xam ne deram yàqu na ba noppi teg na Sénégal gàcce ba noppi incha allah. Euh, tey yaa ngi koy wax tout à l'heure benn miss wax na ne ministre moo ko ëmbal donc ñu tudd ci ay ministre euh, de la République euh, ndax am ngeen yaakaar ne dossier bi dina dina dina dinañ ci dem ba mu jeex. waaw yaakaar naa ko parce que yoon kenn moomu ko. Mhm. du gis nga barka démb rek préfet yi nga xam ne dañu gàntaloon listu candidat yu. opposition bi. Mm-hmm. ay préfet lañ waaye ba yoon yoon wëlbatiku na jox dëgg opposition bi. Mm-hmm. Eh, daal di xotti préfecture loolu waxoon nañu ne du mujj fenn waaye foofu moom loolu lu leer la euh, sa naataango ba lay nekk euh, rajo euh, Zik FM mm-hmm. du jote woon na fi avec le maire de Guédiawaye kooku porté ko plainte ñu naan e du mujj fenn waaye yoon jox na ko dëgg ba pare daal di débouté kële exemple yi bari na. Mhm. justice bi tout n'est pas parfait waaye nañu reconnaître ne y a des juges dignes et patriotiques yu taxaw taxawaay bu impartial alors kon nag am nañu yaakaar ni taxawaay bi procureur taxawoon ca fóonante kat di ay punkalum góor di fóonante foofu ci esplanade Grand Théâtre mhm. ba yoon teg loxo taxawaay bi procureur taxawoon ci promoteur boobu di yàq xale yi dugal leen ci ay série pornographique ñu di ko wax cirque noir ba yoon teg leen loxo mhm. alors am nañ yaakaar ne dina taxaw boobu taxawee et justement mhm. protéger miss ndax ndaw si yëkkati kàddu yu ñaaw yi di encourager viol waaw bu keneen bu bëggee yëkkati kàddu yooyu dina seetal boppam tey ban jàngat ngeen def euh, ci beneen anam visitu euh, chef diplomatie américaine euh, bi nga xam ne ñu ngi koy laam-laamee fii ci Sénégal bon ñun depuis bi at mi xaajee bi Joe Biden defee prestation de serment ñu artu bi ci liste membre gouvernement bi ki ñuy wax Ned Price. Mm-hmm. mu nommé ko porte-parole département d'État. te muy góor jigéen bu bu sosolul moo taxaw waxal boppam ne man borom ñaari tur la. Mm-hmm. ba ne sax diw mooy sama fan. ci la ñu ne ah Macky Sall de nga xam ne nattoo ngi ñëwaat de. waaw eh, naxante nga ba gàntal Obama le 27 juin naxante nga ba gàntal le premier ministre canadien Justin Trudeau jaaroon ci le 2 3 février 2021 ah nee nañ ko nag na nga takkuwaat ndax gouvernement américain ci boppam moo fees dell ci góor mm-hmm. alors léegi nag am na ku fi war ñëw ci ñoom waaye bu yeboo ñoom ñoo xam ne amuñu affaire ak Macky Sall de waaye peuple sénégalais ño wane woon le vingt 23 mai deux mille vingt et un mm. fii ci place Obélisque rassemblement boo xam ne foo foo foo xool ba fu sa bët yem rek mbooloo la pour dire non euh, LGBT mm-hmm. alors ndax ñun gëm nañu ne dëkk bu sell bu mel ni Sénégal ci amut cheikh al islam Baye Ibrahima Niass ak Seydina Limamou am naa yaakaar ne réew moomu ku ko bëgg a tilimal mbaa nga bëgg ko toroxal yaay torox incha allah. d'accord jeexaleeg li nga xam ne euh, maanaam àjjuma ji euh, lañ ko fësal sax daanaka ci li nga xam ne moom mooy information yi muy benn prénom non binaire euh, bi nga xam ne il la léegi au lieu ñuy wax il wala il pour définir genre bi dañ ci def il pour ñi nga xam ne ñoom xamuñu fu ñu féetee ci Robert. muy dictionnaire bi nga xam ne ñëpp dañ koy jëfandikoo tey nan nga jàngatee mbir mi. Ah, wala raam ci ñag bi la jëm rek. ñun waxoon nañ ko depuis deux mille dix huit. Hmm. waaw nee nañ leen réewu Europe yi ginnaaw xeex nañu ba daganal ngóor jigéen ginnaaw lobby yi xeex nañu ginnaaw daganal ngóor jigéen léegi daganal nañu sëy bu officiel ci maire yi. Hmm. wala jigéen ak jigéen. nee nañ mooy. ex yi nangul leen ni bi yàlla bindee góor bind jigéen. texte yi nangul leen ne am na xeetu doomu aadama boo xam ne suñu seen bopp ci seen bopp uh-huh. ñu war leen a may ñu am droit assumer seen orientation sexuelle loolu loolu mooy seen troisième jéego alors léegi Allemagne euh, jox na leen ndam uh-huh. parce que lobby homosexuel yi def nañ pression sur le gouvernement sociodémocrate ba euh, le Bundestag artu na ci daal di jox délai gouvernement bi mhm. ne ko may nañ la ba fin décembre deux mille dix huit pour ñi nga rétablir leen dans leurs droits léegi nag c'est chose faite parce que le Bundestag maanaam le parlement allemand mhm. woote na le quatorze décembre deux mille dix huit benn loi bu bees waaw bu bu créer le troisième genre moo tax léegi Allemagne boo gisee permis de conduire yi boo gisee euh, kayitu juddu yi ak yooyu ni muy amee case booy coché pour le sexe masculin am case booy coché pour le sex féminin am na beneen troisième case pour euh, le sexe intermédiaire wala troisième genre wala personne intersexe hmm. tur yi bari na hmm. am na ci ndam kon nag à part ak jigéen créer nañu xeetu doomu aadama bu bees mooy koo xam ne doo góor doo jigéen wala comme ni nga koy waxee fii ci senegal góor jigéen hmm. alors léegi nag am na réew Europe yu jaar ci tànku Allemagne mu di Autriche ak euh, Hollande mhm. lobby homosexuel français yi ñoom it jóg nañu waaye yàlla baax na le conseil d'état français débouté na leen mhm. waaye tekkiwul ne dañuy bàyyi parce que xam naa dañuy dem takku ji rek ba mu dëgër pour mën a songaat waaw Sénégal nag comme que dañuy di roy France ñu war a ubbi suñu ba def preuve de vigilance vigilance bi nag mu ngi ci président Macky Sall yi muy woote ne gàntal na Obama ak Justin Trudeau alors na ko jëfee en commençant par réformer ministère bu doy waar boobu parce que boo jëlee ministère tuddee ko ministère de la femme de la de l'enfance et de la famille doy na mais pourquoi et du genre genre mooy kan alors euh, yamuñu ci lool léegi créé nañ des départements genre dans d'autres ministères voilà kon nag ñu ngi koy ñaan mu effacé ko di ko parce que kenn du la fekk kenn du lay jiñ ndëmm fekk la ngay seeñu yàqul yi waaye ñu ngi ci am yaakaar ndax dañu doon xaar euh, a gi passé rek mm-hmm. ñu eggali tournée ba nga xam ne tàmbali woon nañ ko waaye dañ ko mujjoon ak ndax pandémie bi pour euh, dem Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina mm-hmm. Baye Layène mm-hmm. famille omarienne voilà pour que ñoom ñu mën yàdd gouvernement bi ndax mu dindi loolu genre boobu mu def ci gouvernement bi te amul benn njariñ amul sens lu dul yokk tuuma rek ci seen mhm. voilà ndax réew mu tedd bi nga xam ne fii la Cheikh Amadou Bamba tëdd Seydi El Hadji Malick Sy Cheikh al Islam Baye mhm. euh, am naa yaakaar ne réew mu mel nii ku ko tilimal mbaa nga bëgg ko toroxal yaay torox incha allah mhm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Mame Mactar Guèye